hello guys ladies and gentlemen welcome to our channel english in wolof tv tey li ñuy wax ak yéen continuer li ñuy wax challenge bi challenge bi nag defoon nañ euh, numéro 1 bi ñu ngi ci numéro 2 bi tey nag expression lay nekk ñu ñëw ak yéen ci expression yi am solo ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax première expression bi moom mooy what do you mean what do you mean lan nga ci jublu lan nga jubloo wax ñëw kon ci deuxième expression bi am busy ay am busy dama jàpp expression bi mujj bi troisième bi mooy am filing lazy ay am filing lazy dama tàyyel donc ces amis li ñu leen indiloon tey ci challenge bii nii di wax ngeen abonné partagez vidéo euh, pour que vos amis aussi bénéficient de l'expression anglaise et aussi de am solo